jërë ngeen jëf gars yi bëggewaat naa leen bëgge naa leen waaye bëggewaat naa leen di leen fàttali ne Sadio maane Ballon door Sadio maane Ballon door waaye Sadio Mané tamit Ballon door te bu leen fàttali ne Sadio Mané Ballon d'Or gars yi aimé leen vidéo yi aimé leen bës leen aimé bu leen fàtte abonné ah bu leen fàtte abonné gars yi voilà comme niñ leen koy defaree saa su nekk rek tey dañu xëy ma gis benn euh, titrage te ñun en journalisme dañu jàng lan mooy titrage à titre lan lay lan lay liggéey ci euh, ñi nga xam ne mooy internet yi wala ci lecteurs yi donc ñu xëy tey gis l'équipe l'équipe je crois que ñu bari xam nañ ko fii benn journal français la boo xam ne day wax ci football l'équipe daal di génne quatre derniers nominés yi nga xam ne ñoom ñoo des ci ballon d'or bi muy jiital ci Karim Benzema jiital ci De Bruyne euh, Lewandowski ci teg Sadio Mané mu nekk loo xam ne si nii ñun ñi nga xam ne jàng nañ journalisme jàng lan mooy titrage di wax jàng lan la titre euh, di def ci internet bi waaye lan lay titre tamit di def def ci lecteur bi donc mu nekk loo xam ne c'est une combat bi nga xam ne c'est de bonne guerre mu nekk loo xam ne si ni euh, euh, euh, ñun ñi xam ne ñun comprendre nañ donc duñ duñ buñ ko déggee toog rek dafay mel ne complice lañ ci ballon door bi nga xam ne jaar na yoonu sàcc ko Sadio maane te dañ waxay fàttaliwaat ah ndax loolu du lu ñu war a fàtte muy que Sadio maane ballon door saajo Mané ballon d'or loolu dafa leer Sadio Mané ballon d'or gars yi boo xoolee média français bi dafa nekk média bi nga xam ne dañu man influencer tey jii kiy voté euh, souvent li tax ñuy def yii nii man lu ma gën a ñaan jort mooy que li tax ñoom ñu def li mooy que euh, ñoom ñuy voté souvent ñuy dugg rek di gis toujours Sadio ci kaw kenn waxu ci euh, nu mu tudd Karim Benzema kaw kenn waxu ci Karim Benzema ñu koy jiital toujours di ko jiital rek loolu mun na leen influencer à ce que tey jii ci vote ñoom ñu favori ki nga xam ne moom mooy Karim Benzema te ballon d'or bi Sadio Mané moo ko moom ren Sadio Mané lu mu def ren nit defu ko Sadio Mané lu mu def ren nit defu ko donc euh, kon ballon d'or bi ñëpp xam nañ ne Sadio Mané waaye nak dafa am loo xam ne si ni mun na contrecarrer te daan souvent damay gis ñun Sénégal dañuy bàyyi ba jaan romb ñuy dóor ci wat watis bi amul sens les gars donc j'appelle à tous les journalistes africains tous les journalistes sénégalais de mener ce combat gis nga euh, donc euh, gars yi ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Sénégal surtout en wolof mooy que il faut ñu liggéey ci il faut ñu liggéey ci affaire parce que journalisme bi journal yi ak euh, yenn presse écrite bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci YouTube bi ñi nga xam ne ñoo yor site internet yi di bind maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu liggéey ci il faut aussi tamit ñu ne ñu am benn format d'influence bu am doole mu am doole surtout buy contester ñooy seen stratégie yi ñuy def pour euh, euh, suul Sadio Mané donc euh, frère africain donc loolu la rek loolu la rek incha allah ah, gars yi ñu liggéey ci ñu liggéey ci ñun liggéey ci te yéen ñi nga xam ne aussi tamit yéenay suivre suñuy vidéo yéenay dem di lire suñu article ci suñu site internet yi donc ñu ngi leen di woo ci lan partage yéen partage ngeen man il faut ngeen partager lépp il faut ngeen partager partager partager vidéo yi partager euh, euh, l'article, article yi partager lepp à ce que monde entier bi yépp gis ne Sadio Mané tout le monde est prêt pour jouer au ballon d'or bi gars yi man xam ngi préparé waat léegi vidéo en français pour. média international bi média bi nga xam ne ñu ngi ci euh, sa Afrique bi yëpp ñoom ñu waaj ko ñoom ñëpp ñu pare pour jàppale waa jàppale Sadio maane mu jël ballon d'or bi xam naa gars yi dama leen di bàyyi fii tuuti dem préparer vidéo bi pour que euh, ñëpp jàpp si waaye di leen fàttali ne leen abonné leen bu baax a baax a baax a baax abonné leen abonné leen ñun ñëpp euh, tey partager affaire yi jërë ngeen jëf kontaan naa ci yéen bu baax a baax.